waaw je suis venu en tant que patriote déjà pour jàppale suñu frère mbalaxmaan rappeur yi parce que nga boo ko milieu bi je venu aussi en tant que sponsor parce que may yu ñu sol ñu ñoo leen ko jox dañuy développer benn marque Nike associé ko ak Alpha Sport

incha allah. kon daal da ngeen importé culture sénégalaise bi. dinañ def lu lu